asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ñëpp ak di sàkku ci képp koo xam ne yaa ngi gis uh, ñaari xale yi nekk ci écran bi uh, kenn ki mu ngi tudd Abdou Samad Diouf am uh, fukki at keneen ki tudd Kéba Diop atam toll ci fukki at ak ñeent ginnaaw bi ñu leen yóbboon benn daara bu nekk ginnaaw Mboro tudd Naylu Ndiaye ak sëriñ bi nga xam ne mooy ci sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Abdou Lahat Diouf.